dañoo dañoo am benn baar bu nekk fii suñu biir koñ bon baar bi déjà si mu nekkee baaxul parce que ay kër ñoo ko wër jege na euh, poste de santé bi jege na benn terrain de football jege na parcours bi nekk fii jege na case de tout-petits bi jege na ñaari école yoo xamante ne ay IA lañu école HLM 4A euh, école HLM 4B yëpp dañ si biir si biir si biir kii bi la ne si biir euh, quartier bi la ne jege jege na tam euh, jumaa ji jàkk bi ak jumaa bi nekk fii quoi macha allah. baar bi dafa commencé indi ay problème yoo xamante ne kenn xamul nu mu toll dafa jéggi dayoo dem na ba xale yi dañuy dañuy reyante am na benn am na benn meurtre bu fi amoon y a à peine un mois et demi deux mois de cela jour boobu dafa fekk vendredi boobu dañoo réunir fii si biir chaise bi. ñu waxtaan ci wàllu HLM nu mu nu mu nu mu yàqoo ak jéggi dayo bi si vendredi bi bi ñu réunir guddi boobu la ñaari booy naan ba màndi benn booy bi xeex ba jam beneen booy bi booy bi mujjee décédé tout le monde footive de dedans ñun ñëpp ci suñu bopp muy ñun ñu fi dëkk ñun ñu yore njaboot gi ñi joxe autorisation beeg ñëpp dañu am dañu am seen part de responsabilité mais rawatina ñi am ñi am part ñi nga xamante ne ñoo joxe autorisation bi lu waral loolu parce que bu fekkee dangay joxe autorisation ci benn quartier ci naanukaayu sàngara ci nga xamante ne ay jullit a fa ëpp ñaare lawar war mooy nga yónni nit ñu dem seet ndegam fa ñu koy def ndax fañu koy autoriser ndax adé euh, adé c'est adéquat ou pas su fekkente ne loolu kiiwul nga ne ko seetil feneen foo jëm. benn part de responsabilité boo xam ne gouvernement bi daf ko daf daf daf ko dafa bàyyi maanaam sàngara bi Sénégal defaru ko xamuñu fan lay jugee te ñu ngi koy bàyyi muy dugg si biir réew mi benn. ñaaral bi té ñi signé nu mu tuddati xaw ma euh, mooy seen autorisation yoy licence licence tam gouver préfet bu ko signé war na yónni ay nit aussi tam ñu xool ndax fi fii baar boobu nekk jegewul point yooyu ma cité sank manam école fu ñuy fajo terrain de football wala fi xalé di jangé mu nek jardin d'enfant wala mu nek école yoy yëpp ko. man dama nek fi damay liggéey man damay jaay al alcool la jaay deug la. waaye alcool bi may jaay kenn du ko fi naane man damay dama lay jaay yow nga génn dem si biti à rapport ak moor yi ñuy wax ak yooyu noonu nag defe naa moor bu fi amee ay 2 heures du matin trois heures du matin man du ma fi fekk man minuit pile damay tëj sama buntu yi ma dem tëdd nelaw defe naa 2 heures du matin ma fi fekk kon moor bu fi amee ay 2 heures du matin 3 heures du matin ñu bugg ma ko jiin kon dina ma mosa dina ma xaw a jaaxal tuuti nag waaw alimentation bi ma yor nag man dama lay jaay nga dem si biti te boo une distance bi 2 mètres sama buntu man sama yow. non parce que xalé yi muy ak mag yi dafa bëri. plus de 17 personnes directement ou indirectement à cause du bar. parce que ay jakarta lañ fay jaay ñu bi sax xamuñu ban composition chimique man duma jaay xale man ma jumu laay jaay yow bo yone xale sax ne ko kay jindal ma man boo tar carrément dama lay naan kan mo la yoni nga ne ma diw moma ma ma ne ko bo démé nga ne ko tata ana nee du jaay xale té du ngeen jaay it ñuy wax jakarta di jar 100 francs man duma jaay jakarta bo buggee nga dugg ci biir nga vérifier ñun ñaanuñu ko dara luddul na jël baram réew mi yaatu na jël nanu kay sangaram yobbu ko fenen man man bu toge fi dama yor fi samay kayit lu set wit la yor la yor man bu ma lon karet kayit man du ñew tok fi di di jaay man dama nek fi di jaay sama. kan mo la jox kayit bi. man gouverneur momako ma jox. Ah, autorisation pour nga jaay. man dama am autorisation buma ma autorisation kon man duma taxaw fi di jaay awma sañ-sañ bobu sama jëkkër mo nekkon fi di jaay dafa décédé. ma dess fi di jaay di daan sama doole pour di sutural sama njabot loolu motax may nek fi suba guddi ak gis ki ki ko. mais qui xamante ne mon moo loué bar parce que femme bi qui gère bar bi ana chez ana bi moom dëkkul fii bon d'après suñu information Grand Yoff la mais qui xamante ne moo ko loué suñu grand bi Pape Diallo dem na ko seeti ba gis ko paa bi daf ko ne dina jël na ay matukaayam loolu la ko bi wax quoi borom on bi loolu la ko wax rek ko wax quoi ñun information pour lañ ci am. waaw ça dépend si rek des na si ñoom xam nga nit yi moom versement bu mon moom ku nekk moom day wax nee na woon ñàkk a amul a am. parce que lii ngeen di def nii man sax yëgguma ko woon man xam nga ne danga maa fekk ci biir ma toog kon yii nii ngeen di def nii sax man def maa bett ah ku nekk nag ak li ngay gis ak fi ngay xalaate loolu rek la baar bi jóge na fi baar bi jóge